ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahidul ahad asamad wasalaatu wasalaamu ala nabi alladi allamana xaisan suratul ixlaas wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi mbokk àddina bi mbokk ñu nga xamante ne ni yéen a ñuy ci seen site bu màgg bi di Farokh TV ñu ñëwaat ak yéen ci seen beneen ponk waxtaan nga xamante ne ni mbokk mu baax nekk fële ci dëkk bu sori sàkk woon ñu waxtaanee ngëneel yu nga xamante ne ni moom moo nekk ci suratul ixlaas suratul ixlaas di saar bu nga xamante ni benn saar la si sar si soratu si saari alxuraan yi boo ñëwee bu fekkente da nga ko si kaw jëm suuf mu ngi nekk téeméeri saar ak fuku ak ñaareel ba bu fekkente ne da nga jóge ko suuf jëm kaw mu ngi nekk ñetteelu saar suratul khulwala mooy xul wala ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakulahu lahu kufan ahad dafa am ay ngëneel yu bari yu nga xamante ni mu ngi si loolu lu koy tegtale rek bokk na si bari gu nga xamante ni saar bi bari na ko tur suratul ixlaas amna lu toll si ñaar fukki tur arab day wax ne bari tur dina waral tedd nga lu ñuy tudd moom saar boobu lu waral nag saar bi wàcci mooy yéeféeru màkk yi sallallahu ne ko siflana rabbaka melal ñu sa borom ñun ñu ngi am téeméeri yàlla ak lu tek te suñu soxlay adina yi ba légui mu ngi ni taga tembe mënul faju nga ñi jamulo ben yàlla ga nga xamante ni xamuñ fa la ne yenent bi xawa mer waye nak ma wadahaka rabbuka wa ma khalla jibril ñëw ne ko sa borom nee nga tontu len wax na wax len wax len na len qul huwallahu ahad wax len ne sa borom bobu ñulay laaj mom de kenn la Moy moom moy, borom bu nga xamante ne ni moom mooy kenn ku ñu war jublu euh, mu ne mu ci ne lam yelit walam yulat, jurul kenn te kenn juruko ko gaaw xaat rek yàlla mu ngi dàq wax yu nga xamante ni ñu ngi koy wax naan Isa ibnu Maryam naan doomu yalla, la yàlla nee jurul kenn waaye tamit kenn walam yakun lahu kufan ahad deet du moom yàlla di ut du ñu utal ku ab dend ndoor kon yàlla moom kenn kase la moom mooy rabbu samawaati wal ardi euh, loolu lay suratul ixlaas di firi waaye nag ngëneel yu si nekk nga xamante ne moom saar boobu dinañ ko tuddee suratul najaaxa mooy saar bu nga xamante ne ni saara mucc la Aysata radiyallahu taala wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon na bu tëddaan ci lalam da daan jàng lexlaas teg si falax ak naasi yi daal di tëfli si boppam ba si tànkam kon saaru mucc la loolu tamit dina dëggal wane nazlu min alquraan maa wa sifa wa rahmatan lil muminin aysata radiallahu taala na nettali waat na wax na ne yenent bi bu amaan dara lum daan jàmmat méttit moo xam si wàllu yaramam dangay gis ne dafay jàng lixlaas ak falax ak naas ñaan yàlla mu daal di koy saafara bu nit ñëwoon tamit di ko jàmmatal tamit noonu lay def benn waay ñëw na si yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko man de damaa nekk ku ñàkk koo xamante ne ni mënuma am dara ñaan ñu yàlla musal si ñàkk euh, yonent bi ne ko boo duggatee sa kër na nga nuyu sa waa kër boo fa fekkee nit nga nuyu leen nga jàng ñetti lixlaas boo fekkul kenn nag nga nuyu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga jàng ñetti lixlaas nee nañ waa ji saxoo di ko def yàlla wàccee si waa ji wërsëg wàccee si moom xéwal non seulement waxuma la si moom sax waaye koñ bi mu dëkk sax ñëpp dañoo daal di nekk koñ boo xamante ne nii koñ bu bëri wërsëg la kon lañ si mën a déggee rek mooy nit bi jàng ñetti lixlaas wax la yent sallallahu alayhi moo ko wax kon kooku yàlla dina ko musal si ñàkk ko lii dinañ ko tuddee tamit suratul wilaaya mooy saar bu nga xamante ne nii moom mooy yéegal góor yàlla yi si maxaama yu kawe yi